ndox mi man jamono ji ma fàttalikoo moom fi la ñëw booba taw bu bari la woon booba daara ji bàyyi jil mbàkke fi woon def fi ay toolam di fi bay ay ginaaram fi woon tamit ñu ci mbay mbay ma am solo ay dong tamit moo ngi ci biir daara ji at moomam ñun am na gore goo xamante ni ku tudd galaseen suñ kër la dëkk am na dong boo xam ne sax moo ko sowee ci biir ndox mi na xawtun mu lab te biir daara ji la nekkoon ba bàyyi jil mbàkke mi ngi fi def lu am solo nag man nag depuis booba nekkuma fi woon waaye kër gi mi ngi fi woon ginnaaw bi la sama borom kër nelaw ma taxu si fi maag samay xale waaye dippi nawetu ren ndox mi yëpp ndox mi lu nekk mën na fay nekk lu leneen moom it mi ngi ci biir ndox mi waaye ñu it ñàkk pexe tax ñu dëkk fi ndax amuñu leneen amuñu feneen fii la ñam fii nii kër gi yëpp ndox la woon dañ fi dëkk ñu fi am matériel bu baax mënuñu fi am leneen bu baax. xëy na ndax waa léegi ndax wala kilifa aada ah, ah, ah, ñoo te booba dañoo jooytu ku mel ni Baye Mbacke Ndiaye mii def ci taxawaay bu rafet ba sëñ bas Abdou Khadir ñëwoon fi wax fi te wàccut ci otoom xam naa ne ba wàccee taxawul daa wàcc taxaw ca mbedd dama dëppaat dem boobaak léegi gisaatuñ fi kenn sonn nañ ci nag lool benn koo xamante ne mën na ne kii responsable la ci dëkk bi moom bu fi def benn témoignage gis ñu li ñu dajale fii ñaar rek la du bëri mooy situation yi xew ndaamaatu image mooy wax boppam te dund nañ ko ci benn at dund nañ ko ci ñaari at dund nañ ko ci ñetti at depuis ñeenti at ñu ngi koy dund liñ naan nag lu ëpp tuuru liñ naan lu ëpp tuuru ñëwuñ fi kaas pour ñu xam ñu ñu jox ñu ay 200000 ñu noppi wala ñu jox ñu ay 500000 ñu noppi liñ bëgg mooy solution boo xamante ne nekk solution définitive nga xam ne bu ëllëgee dootuñu taxaw di fi di te pression bi jigewul fenn lu commune Tëral bi ak lobby yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi lu ñu am ca yoon waaye nag fii ñi fi nekk du ñuy porter combat di ca delloo gannaaw depuis booba léegi teg nañ fa ay semé teg fa ay takk der waaye ñun loolu faare wuñu ko ndax ndaamaatu moo ñu ñor Touba ñor ñu ni ñu ko defee ndaamaatu ñu def ko fépp Touba ba Touba di am solution bi ñu ko tàmbalee nag ñu ne ko lu ko def ndax depuis boobu ba léegi ñu ko tàmbalee ko gis situation bi dund ñu ko def mais buñu demee li ñu bëgg daal mooy ñu am solution ndax kambo yi ñu jógee yaa gisal sa bopp la fa ci valeur ëpp na 200 millions yoo xamante moo fa yàqu te ay doomu aadama ñoo fa dëkkoon ay kilifa dëkkoon fa ay daara alxuraan nekkoon fa am na kër goo xam ne léegi lañ fa jóge ay nit ñoo fa nekk ñoo xam ne ba léegi ña am benn solution te wan a wa na ndaamaat amul genn kër goo xamante ni tey ji duus doog nga ko mu gën a gaawee day mel ne Touba kon liñ bëgg ñu réglé ñu lii nu mu gën a gis nga suñ ndaamaatu gi nii mel te waa kër sëñ Fallou doomu dëkk fi ay kilifa dëkk fi kenn amut foo jaar oto yëpp kër we jigéen bi ak sama doom ji jigéen ji barki démb fii la am doom ci biir ndox mi ci nawet bi yéen ñëpp dégg ngeen loolu ci noonu la doom ja delloo ci biir ndox mi la am doom maa ngi ni ba ma jógee opital bis bu set ñu ne ma dellu doxantu ji mënatuma doxantu ji ndax oma fu ma jaar lii lépp ay kàmbalaak ak ak akum ndox fu nit di jaar ah sun gone yi mënatunoo génn sama doom jaa nga ne yere fee daaray alxuraan barki sëñ Fall te gone yi amuñu fun jaar am kenn amut foo jaar ah ñëw ko te micro bi waaw yëf yi de defuñ ko dara lu ñu ngi ko def ci ay yar ak i teggin ak loo xam ne muy naqar woo xam ne nit ñi ñu koy dund ak ñoom depuis ñetti at ba tey mhm. ku ne ne xam ne koñ bi ni mel waxuma la hôpital beeg mbedd yeeg kër yeeg yooyu yëpp waaw jël ñu xam ne nag maam ñàkk jéem dara la bu ñu jéemoon dara ba tey saafaraw na mhm. ndax biñ tàmbalee bay bëgg a waajal yëf lañ tàmbali wër kër di fa joxe ay deux cent mille ak tàmbali nga ci yenn kii la ca nag moom mooy comme Touba dafa am nu muy doxe te ñu doon wax ñëpp préfet ñëpp woote nañ jëm mm-hmm. lañ wax lépp mooy kàdduk sëriñ beeg yooyu te sëriñ bi dégg na ko woote na buñ demee luñ fa jëlee bu soobee yàlla ñëpp danañ xam ñëpp luñ fa jëlee incha allahu rabbi ab taximan la malade bi dama ko yëpp guddi onze heures si guddi fee laa ko wàccee ma ñëw ba si biir ndox mi sama oto fay fay si biir ndox mi ndaw si am doom si biir oto bi ma génne liir bi jox ko mère mu àndal yaay yaay ji ma jël ko man maa ko génnee si biir ndox mi man bàyyi oto bi si biir ndox mi génnee ko sen bi loolu dafa ñaaw lii dafa yàgg lii dafa yàgg hôpital Ndamatou dañ ko war a defar maa ngi tudd Mor Ndaw dëkk fii di fii ci quartier